asiru malabay nasiru Le complexe islamique Khadim Rassoul de Touba Tuubaa ci kanam gépp bu ko teg ci loxo sax mu Basiru teg ci loxo Sëriñ ak ci loxo njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp ñu nuyu gan yi teew ñu bàyyi seen soxla ñëw ñu nuyu seen xam ne fa seen liggéey Sëriñ Tuubaa ci lu ñu am ci lu ñu fi yëkkatee ji mooy dañoo bëgg seen li muy sëriñ Muntaxa ay jëf te mën ko dóor ci wax ndax kaay ma wax la kaay ma la ko woon te lii ñu naan la suñu tubaab ñu bàyyi ñu sol si Muntaxa si Muntaxa di ko moom jotaay bi waaye ni ma ko naan la jëfee wax ci kanam ak ñeent téeméer bëggoon wax njaboot si Tuubaa gi nga xam ne ko bokk ñoom tàmbalee ko sëñ Muntaxaa bi nga xam ne mooy sëñ Xaadim ba bi nga xam ne jëriñ ak ñu bokkal ñu ko sëñ Tuubaa yépp tàmbalee noppi tàmbalee ci siyaas yi nga xam ne sëñ Tuubaa moo def seen nga xam ne ñoo ñoo bokk yoon sëñ Muntaxaa lii mu santaane lu dara mag ñi lañ lekk mu jafe foofu boobu la alal dana jafe waaye bool bu seet ko waaye dañ fi séeréer mag yi amoon ba indi raay pësee bi nga xam ne ma ñu am dafi jumaa ji pësee boobu war a yeesalaat te xam ne mel mag moo xam ne kenn nga war fukki nekk si ginnaaw kon fukki fukki fukki benn mag bu nekk bu dee fukki nekk si ginnaaw nanga mi ñëw demaat si mbir bi rek bu ñaaree suñu tubaab mën na tubaab ci kanam nag xalaat bi mu xalaat ko def kenn état moom ci boppam ñëpp lu bëgg a def ñëpp loo dimbali ci kon nag ñu mel ne su bopp rek jàll dimbali ñu mën a jàpp su bopp kon loolu laay ñaan mu ne ñëpp jaay suñu tubaab 37 milliards yi si mu taxaw wax 1 million mën 1 million mën képp bu kenn ku jox 37 mille man jox la sama 37 mille damay ñaan ko ku yàggal Sëriñ Tuubaa ku xam Sëriñ Tuubaa jaar na dara joxe 37 mille si mu tulaa si mu taxaw 37 milliards yi àgg li bëgg maam yàgg waaye Sëriñ Tuubaa kenn du ko nanal dal mu jox ëllëg ndax moom li ñëpp am ko liggéey Sëriñ Tuubaa baax ñëpp seen bi Alaaji Baara yi nekk seen xarit juróom ñaar fukk ñëw ñeent yëkk teg ci loxo murid yi war na jox doomu Sëriñ Tuubaa def ci kaw suuf ñu fi nekk mooy yàggal Sëriñ Tuubaa jëmal Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa dafa la gën a képp ku Sëriñ Tuubaa jël ñu dee suñu dara Sëriñ Tuubaa kon ñun ñëpp war na gëm ne Sëriñ Muntaxa mooy Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp war nañu ko jàpp ñu bëgg ko Tuubaa ci kanam jëm tàmm bi dañoo wax ne lay taal rek la waaye dañu fi seen ànd ci liggéey bi ba lu ngay lu ngay def loo ñu def fooy ñu féete rek suñu féete bi incha allah taala lii am Sëriñ Tuubaa ko ndax dañu bëgg Tuubaa jëm ci kanam Tuubaa jëm ci kanam nag fii ci ñu njëkk tàmbali mooy xam-xam la tàmbali ndax ko xamul dara loolu mooy jëf dara beneen bi ku amul alal borom année moo ne leen ku amul alal doo mën a dara loo yéene yéene dem tabax am nekk te amul ñaar dama ko tabaxee du sotti beneen bi boo ko amul doole boo ko amul doole joo ci joo joo liggéey si Tuubaa doo ko def beneen bi ci boo ne amul xel rafet doo ko def borom xel yi war nañ leen ko am xel mu si waaye tey jii xeeb naa lu bare ay gis naa loo xam ne xeeb naa ko lu xeeb waaye nag lu sama sama yëngu laay waxee mooy si mu taxaat ko yi ñu war a waxal leen waaye trente milliards kenn ko waxal ko jox ko yëf yi nag yëg-yëg rek la boo dee analyse am xel bu sax ndax seytaan yaañu ko faxar wa yàlla bu ñu saay seytaan boo ko liggéey ci wax ne yow boo boo joxee dafa te doomu aadama bu dee ba naa ko sa xeet yi ba ko di sa xeet yi boo ko la ko nekk kon nag yàlla boo ko joxee mu jox la boo ko jox yàlla boo ko yàlla yàlla du ko du ko la wala ci àdduna kon bu saay ku jàpp ne liggéey suñu raw la rawatu raw suñu ba ñëw lépp lu ñu ci wàññi di ko ci di ko ci mag njëkk ñi bu ko defee dafa am te mooy liggéey Sëriñ ci université bi kon nañ ci yaajuwaat taxawu ko yëf ko milliards dak ko yëf milliards jëf ko jëf ju wér ku nekk am nga la jàpp mooy àjjana àjjana joojee nag ci boppam bu ñu ne woon suuf si yéen dafay àjjana sa borom ne bu ñu àjjana waaye fekk suuf si loo ko xëy sa jël fekk suuf da nga ma si gën àjjana ndax day jeex kon Sëriñ Tuubaa bi xam moom pësiyee doon état yi pësiyee mën nga digal ndax dina la fii yàlla ak yàlla te yow yàlla mu bàyyi su borom su dara ko dafa ko ndam ci yi nga xam ne liggéey mooy sant kilifa yëpp di ñaan la waa Touba ca kanam yëpp ñi ci bokkutoon ñu bokk ñi ci bokkoon ñu gën a xam te loolu moo wàññi ànd naa ko moom su rafet bi dugg nag ñoom kenn ku ne na joxe trente sept mille jox suñu dara lu mu toll xam ne toll ñu gis ne moo laa ne yàlla sax ba ñëw ñu gis loolu laa ko jox maa ngi jël seen monsieur sëñ Ahmed Badi yow bokk ñu teew yëpp di ñaanal yàlla suñu ma dimbali ba kii lii bu tax rek day wax leneen wax ñu taxaw waaye ndax sëñ kenn mënu ko naan dara mu jëm kanam di wax sëñ Basiru Abdou Khoudoss yow li nga xam ne kenn borom yi nga xam ne sa maam yi sëñ la bokk sa morom sëñ di tàmbalee ci kër borom saam bañ ko sama saam ñëpp da nga wax yow yaa ngi def sëñ ànd nga ca ñoom waaye euh, soññu nañ la ci ndax sa maam lam taxawoon sëñ Tuubaa di ko liggéey foofu soññu nañ la ko soññaat si bokk yooyu bokk ñëpp nga xam ne yéen seen maam yi bokk sëñ Tuubaa ñoo bokk sëñ Tuubaa nañ ñu ànd ak ñu liggéey Cheikh yi Seydou Fall yi kenn mënu bàyyi Fall ñëw rek bàyyi Fall dem démb rek démb rek deux millions cinq cent mille ñu bàyyi Fall yooyu jëf ñu tan rek jëf na kenn mënu te yëngu loolu yàlla dina jox ëpp loolu yàlla dina jox ëpp loolu kon may may may seel sama cant di sant jabar suñu tubaab gépp ndax ku yëg xam na ko ko seetlu na maa xam ne fii la départ fii bi maa ngi jëm dara sa kaddu bi moo gën a jël soo kaddu ndax kaddu suñu bi kaddu suñu moom doole ko daa yi ilay day yor waaye gis ni mu am solo ndigal yow yàlla kon ndigal laa moom sañul ko sañul duñ soxla ci lu mu di yooyu gis ci waa ñu jàpp ne liggéey bi ñi ne féete ñi féete kenn ku nekk rek dañu complété la rek di mottalante rek li bëgg day wax maa ngi sant yàlla maa ngi sant leen gërëm te ñaan suñu borom defal ñu taw fiix defal ñu suñu tuwaa na nga suy tànn na nga suy jëf yàlla ko si jëf salaamaaleykum